waa GIE Yadia Agro produits alimentaires yaa ngi tout ce qui est financement alimentaire lu jëm ci wàllu ceeb diwlin soble pomme de terre laaj soble baa ngi nii diwlin baa ngi nii pomme de terre laaj tout ce qui est financement alimentaire lépp loo waroon jënd di ko jënd détail GIE bi mun na la ko lebal client groupe nga fay ndànk-ndànk ba keroog muy mat mayonnaise yaa ngi nii moutarde yaa ngi nii sama madaar yi pour jaaykat yi mu ngi nii tomate baa ngi nii jimbo tout ce qui est produit alimentaire meew diwlin cinq litres yi diwlin vingt litres yi tout ce qui est produit alimentaire projet bi mën na la ko lebal nga kat nga koy fay ndànk-ndànk ba keroog muy mat donc aussi avec des financements xaalis yeneen produits yi ñu ngi Euh, nga xam ne Marème Gueye moo ko def projet bi pour jàppale képp ku nekk ci Djidah Kaw di liggéeykat ñu jàppale la sa activité nga am lépp loo xamante ni mënoon nga ko am nga euh, nga daan jënd détail mu nga ko am prix en di liggéey sa place projet baa ngi nii contrat yaa ngi nii donc GIE Yadia Agro donc lépp lu jëm ci wàllu financement projet bi da koy dox salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi nga xamante ni yéen ñu suivre à travers suñu bi ñoo amaan dëkk tey li koy sabab tam mooy dellu si nga xamante ni mooy entreprise yu Yaye Dia bëgg a xool liggéey bi nga xamante ni ñu ngi ko fi def ak naka lañ koy doxalee ak naka la nga xamante ni moom lay liggéey ak jigéen ñi nga xam ne mi ngi leen a jàppale tey ci biir jamono ji na ci commune bi de Thiaroye bi nga xam ne ni fi lañ nekk kenn nag ci wax dëgg yàlla famille bi xam ne ci biir liggéey bi jàmbaar la ci dëkk ba Thiaroye waaw moom lañ ko bëgg jox kàddu bi laaj ko turam ak santam mu présenté wu wax ñu tam ci liggéey bi nga xamante ni entreprise bii di Yaay Dia mi ngi koy def naka la koy doxalee ak naka la koy liggéeyee ci biir gox bi macha allah rabbi soxna si ñu ngi lay nuyu di la ziar nga présenté wu macha allah. maa sant Guèye dëkk commune de Thiaroye Gare. di ànd ak monsieur le maire dëgg yàlla fii moom macha allah. madame Guèye rek mu ngi jàppale femme te tegu ci benn intérêt ndax woo na femme ji de caaree kaw yëpp defe naa ne femme ji de caaree kaw yëpp lii partout la ndax dakaa tasaare pour ñëpp seen toogaay bi dakaa jëlee moo ko fee dindi jigéen ñaa ngi ñëw ceeb diwlin suukar meew café lu waay di soxla si këram wala si taabalam pour jaay rek madame Gueye yombalal na ma ko bi yëpp la yëkkati si jigéen jigéen dañ doon tëdd di nelaw bëgg fuñ jafandu amuñu ko buñ demee si banque dañuy def caution ba sonn wër xaar ba sonn ñuy doog leen a financé madame Gueye nag moom dangay ñëw ubbi 4000 francs mm-hmm. boo ubbee 4000 francs ak benn foto ñaari foto ngay def ak photocopie carte d'identité ak ñaari numéro téléphone mhm. bu dee ravitaillement nga bëgg du am sax ñaari fan mu woo ñu jox la nga dem nga liggéey mhm. du la teg nag loo mënul mhm. danaan la yow yaay wax noo ko mën a fay teguñu ci benn intérêt tegalu benn intérêt. kon su ma la déggee bu baax fi mu toll nii moom daanaka euh, li muy faral di joxe ci biir entreprise bi yemul ci yemul ci dundu kër rek waaye mi ngi ci boole itam nécessité yi nga xamante nit mi ngi koy soxla ci biir këram da ko ciy joxe waale tamit. waaw instant lu muy joxe. Mhm. yemul rek si biir kër. Mhm. lépp lay joxe. Mhm. bàyyiwul frigo. congélateur. téléplaque. ay portable. loo soxla oto. kër. financement. loo soxla rek bu la ko joxee du la si tegal benn intérêt. te yow yaay seet ni ko mën a fayee. nga di ko fayee yaay seet nan ko mën a fayee. duñ bañ na ko day ñëw par yenn saa toog si bureau bi dinaa leen baar wax tegu leen si dara. Mhm. du yombalal jigéen ñi. Mhm. yombalal góor ñi. parce que loo waay bëgg mu ngi fii. Mhm. ndax man wax dëgg yàlla moo fi duggee ba tey. man maa fi njëkk dugg. ma gis si sama bopp. ba ma demee ba ma fi seet saa bopp ba tey. Mhm. sama groupement ñëpp ñu ngi fi ñëw. Mhm. amul caaroy gaar. Mhm. amul Jide caaroy kaw. amul Pigit. amul benn baraag amul Malika. lépp li da yaatal pour ñëpp bokk si. macha allah kenn mënu kaa fay. kenn mënu kaa fay. kon yëf yi moom yemul ci Pikine rek dañ defoon ni jidda yu kaw la mais yemul fi jidda caaroy si Pikine da yaatal. kon daal national lañ ko mën a tuddee. bon boobu moom waa national ñëpp dañ kaa dafa jàppale waa national mm-hmm. bon boobu mu ngi jàppale sama càmmiñ bi Modou Gueye mm-hmm. wante tamit avant Modou Gueye nag lii dakaa fekk mu teel yàgg di ko def mm-hmm. dakaa yàgg di ko def social ak développement moom la nekkee si nit ñi dara lu metti jigéen ñi buggul dara lu metti góor góor ñaa ngi ñëw di tijji ñi ñu ngi wuti oto ñi ñu ngi wuti kër kër tamit soo ko bëggee da ngay ñëw nga adhéré cinquante mille nga xool ban site nga bëgg ñu daggal soo demee ba fay ba si génn waa boo dem ba nga bëgg sax dañ lay woo boole la ñi lay tabaxal ñu tabaxal la boo paree jox la sa caabi macha allah loolu yëpp madame Guèye moo koy liggéey moom boog ñun moom kenn mënu kaa fay kenn mënul fay madame Guèye mm-hmm. ration yaa ngi nii tegu mm-hmm. femme yaa ngi nii di génnee butéel duuli nii congélateur yëpp a ngi nii télé yëpp a ngi nii tam portable boo bëggee iPhone marque boo bëgg ñu jox la ko si yow yaa xool nag noo ko mën a fay kenn du la teg loo mënul fii moom fi bëgg a liggéey boo yeskee bureau madame Guèye bi di liggéey inscription yi pour adhérer ci ci ci ci 4000 francs 4000 francs ak ñaari photo ak ñaari numéro téléphone ñaari photo ak photocopie carte d'identité ñaari numéro téléphone yu bokkul. Mhm. ngay adhéré si bii. Mhm. wax dëgg yàlla bañ fi duggee ba tey ndax man soo ba tey damaa xëyoon liggéey fajar ba tey. Mhm. groupement yi dañ ne man duñ dem doo dem te dama leen a ñëw jiitu fii ni ngi nii toog lu man ñaata personne ñu ngi nii lépp lu ko waral ma madame Guèye mu ngi recevoir borom lekkati mu ngi defal ñëpp di jàppale sama càmmiñ di Modou Guèye di jëkkëram bi nga xam ne mu ngi gëdd a caaroy kaw yàqul dara si jaaroy kaw gëdd a caaroy kaw mu ngi defar ba mu baax yaa ngi ci ay rakkam ay magam ñoom ñëpp ñu ngi nii ñoo yore affaire financement bi yàquñu si dara lu mu leen liggéey lool moom la leen di def lool mhm. lu mu leen sant moom la ñuy def mhm. xaadima nga fii nekk ak ay jigéen yoo xam ne ñu jàmbaare mhm. yàquñu si dara yàquñu si dara macha allah léegi yow lan ngay wax sa moroomu jigéen ñi fi mu toll nii ak sama moroomu jigéen ñi yéen nag bëgg naa yéen ñëpp ngeen ñëw dugg fii si madame Guèye man ku ma woo sama numéro 247 25 ku ma woo boo ñëwee dinaa la yóbbu ndax sawar naa si loolu mhm. ndax man moom ba ma fi ñëwee gis ba tey kon ko naa ngeen gis seen bopp si mhm. banque bi ngeen xam ne ne madame Guèye moo ko defal jigéen ñi pour ñoom ñëpp nañu liggéey mhm. bu kenn tëdd bu kenn bëggatul kenn tëdd wala bëggatul kenn koo ñaan tey bu mm-hmm. subaa bu boo ko ñaanee mu ne la amul ay waa ngir yàlla yéen jigéen ñi jóg leen ngeen ñëw liggéey macha allah te yombalal nañ leen mm-hmm. leen lu metti mm-hmm. teguñu leen dara kan mil boo leen ko ubbee rek da ngeen di liggéey yóbbu seen i butéelu duulin yóbbu seen meew seen i café seen i suukar seen ceeb parfumé non parfumé loo bëgg am na loo bëgg rek am na fi parce que góor ñi ñooy ñëw jigéen ñi yéen ñëw leen liggéey mhm. amul lu fi manqué dara manqué wu jërëjëf ñu ngi koy ñaanal yàlla nag fu mu bëgg a àgg mhm. àgg fa ak jigéen yal na ko yàlla sëñ Babacar si wàllu allahumma amiin yàlla jàppale ko jàppale sama président Mamadou Guèye mhm. yàlla may ñu ndam ci barke Serigne Babacar Sy dinañu ko may. amiin yaa rabbi amiin kontaan nañu kontaan nañu macha allah man tey damaa xëyee yaayu góob yi. Mm-hmm. ñoom ñëpp dañoo ñëw adhéré. ndeysaan ñoom a ngi ne groupement yaayu góob yaa ngi nii. Mm-hmm. soo ngi nii soo ba tey adhéré. Mm-hmm. ubbi ñëpp a ngi nii toog. macha allah ñu ngi ñaajal madame Guèye lépp ñu ngi jóge benn barab. yaa ko waral. wante lii dama koy gën a dañ koy gën a yaatal. Mhm. du yem foofu rek. incha allah day dem ba national incha allah rabi yëpp ay rek. incha allah soobee yàlla jërëjëf. incha allah merci. may wax ne nag liggéey bi mu def di liggéey bu riis di liggéey bu baax. Mhm. yéen ngeen di ko jàppale ndax yaay ñëpp a ci jàpp. Mhm. kon yal noonu yàlla defal jàmm kon jigéen ñi nañu ñëw. ñu jàppale Fatou Faye jàppale madame Guèye. ci liggéey bii ñuy def yal na ko yàlla mottali ci barke weeru koor yi ci barke lay dotu xaddal jërëjëf a jàpp kenn bàyyiwul macha allah sama kon ñaar ma doon jobataan. ñaar ma ko xaaral parce que ñaar fukki suuf day fay dinaa jox numéro bi xam ne moom ngay lii. waaw. déedéet déedéet deux mille cinq cent waaye moo la jot kii keroog kii trois mille léegi mu nekk ñaar waaw waaw. kii ñii ñoo jàppale Modou Gueye. waaw jàppale Modou Gueye bu baax a baax a baax. lu lu xew rek ñu jóg lu xew ñu jóg jógloo ñu jóg. ñu jiite rek ñu jóg ñu ci dëkk ñu ci def dara dañ koy teg. am na solo kii nag naa ko dugal ci Modou Gueye. naa ko jëlee fenn. loolu laa lay wax moom la lay wax ni nga déglu. naa ko jëlee beneen fu mu nekkoon. ngeen déglu ci Modou Gueye. maa ngi koy jéem. Modou Gueye de. nee na. maanaam projet bi yow yaa ngi wax ni ngay tëjee yow wax aussi di nga fay parce que ñun actuellement mu ngi projet bi ñu ko def si benn maam bi ñu ngi jël si bagage su waxee ñu ko ba pare moom mooy ñii laa ko mën a fay parce que ñu moo ne ne social ngay dem mu daal di paiement bi yow yaa xool paiement bi ñu ko mën a fayee beneen ne mën naa fay sa nangam mu ne loolu mille francs numéro sa numéro wéeb ñaata la sa numéro wéeb maanaam da ngay versé si fii si biir léegi léegi léegi léegi ñaari facture yi ngay yóbbu facture bi ngay yóbbu ci bureau bi bu demee ñu livré la sama laaj dégg merci sama numéro waxal sa carte bi yaay. yaay boobu la yow noo gisee liggéey bi. liggéey bi sama baax na rek. Mhm. ndax ñu fi doon ñëw. doon mhm. nañu ko wax bu ñu ñëwee ñu jigéen neex na te jamono moo duggee suñu gor la moo duggee suñu doom la foofu ngi ci mbooloo sama yaay ci na caam sama yaay Kumba Jàll du wax la day wax baatam ca kaw mu koy sant di ko jërëm jamono bii ñu fi def yàlla ci yàlla wasal ba amiin yaa rabbal aalamiin ba ca kanam ak kanam amiin amiin yaa fan nga ñun ñu ngi dëkk fee yëmbal. man man de bëggoon naa ci bi frigo yi wala écran plat yi. écran bëgg naa tamit ceeb ak dundal ndax damay liggéey man damay dem jaw bi damay liggéey waaye ñu yaay jiri ni ñun ak raaj ñu ñoo bokk benn ONG ñun dañu nekk jigéen ñoo xam dañuy liggéey suñu jëkkër dafa gaañu waaye dañoo yor suñu njaboot di xëy di liggéey di daan suñu doole. raa bi nag gis lu baaxam wooñu damaa bëgg ngeen ñëw ci madame kii madame ñu ñëwoon ci réunion bi ñu waxtaan suñu xel dal ndax raa bi lu ñu dugal dañuy dugg ndax xam nañ ko ci fulla fayda personnalité ak dignité nangoo liggéey nag yor ay yoon ñun ay yaay jirim ñun ONG la bari nañ nag ñu am na ñuy ñëw am na ñuy ubbi tey am na ñuy ubbi suba ndax ci ginnaaw raay bi nii dañu am suñu ñu amal suñu conférence invité madame Ba. madame Guèye macha allah mu ñëw jox ñu enveloppe bu baax doolee ñu suñu xel dal ñu yaay ji nii macha allah loolu mooy suñu liggéey ànd suñu jigéen bi ànd ak moom pour ñëw ànd ak moom dugg ci bagage yi man man kay fi mu naa écran plat waaw damay dem jox benn ci dem damay jaay géej gi ak yéet keccax ak ñebe tigabede ak nooflaay. ban écran plat la. écran plat man bëgg naa bi bu mag rek. man daal bii laa bëggoon bii. waaw bëggoon naa ko. 55 55 modalité de par jour. ñaata ak kii ak kii bi. waaw. dëgg la suñ waxee temps lay wax kenn ne ñii ngay ñi ngay jëlee ñi nga war a jël du la wax aussi nii nga koy fayee parce que nit ki moo xam poosam comprendre moo xam activité bi muy nekk lan la fa mën a gagné te projet bi dañ ko tënk ci noo xamante ne kenn ku am fitna ñuy bëgg sa paiement bu nekk loo xamante ne da moo tax nit dañ koy bàyyi mu ma la laa mën a fayee ay écran plat euh, congélateur ravitaillement bi lépp nit ki mooy engagé wu man mën naa fay bëccëg nangam xam nga loolu kenn mosu ko gis fenn. fooy dégg boobu ñu ne la yaay wax li nga bëgg yaay wax ni ko mën a fayee yow yaay wax nan euh, bi kon maanaam ngeen seen prix nan la déparé. waaw écran am na écran 32. waaw 32 c'est à 120 Amen. Amen. aussi écran plat boo xamante ni 43 pouces la boo xam ne LED la LED bi boobu ñu koy jaayee 170 43 pouces bu dee bu 55 pouces boobu dañ koy jaayee 255 yow yaa xool li ngay liggéey. waaw man man damay ba keroog. chaque jour ngay versé ba mu su dee moralité de mois nga bëgg aussi ñu def moralité fin de mois. waaw man damay liggéey damaa am sama location di fay ak sama bi nag ma jëlee écran plat chaque weer mën naa dugal vingt cinq mille. waaw chaque mois vingt cinq ma dugal trois mille deux mille cinq cent. les jeunes euh, waaw loolu ma nii léegi xam nga bi ñuy ñëw dañ ñëwoon laaj dañuy leble waaye duñ laaj intérêt ñu laaj ni comment dañuy da ngay ñëw ñu lebal la kaa liggéey lañ wax. bu liggéey dañuy ànd liggéey liggéey bi may ànd ak yéen laajuma leen li ma jëndee bagage bi noonu ngeen may dellu ngeen ma koy fayee loolu nga jafe ndax koo xam ne macha allah da nga jàpp sa borom tax na nga taxaw ndax femme bi la ñuy jigéen ñëpp taxu ndax ko jàpp nañ ko may doole ndax ñu dañoo gëm suñu bopp dañoo bëgg ji jàppale ci këram ndax dañoo jàppale suñu borom kër ba ñu gituñu dafa ñu nag yàlla loo xam ne ñu ñu fi téye ñoom ñu jiitu moo tax ñu jigéen fu nekk bëgg faa daan doole bëgg ñu jàppale ko ñu ne dañuy takk ñu yaay jigéen yépp ndax dañoo bari ëpp nañ ay nit téeméeri nit suñu mbootaay rajo yi xam ne ci dara ñun ñëpp ci ONG ci kii bi lañ bokk ci tuur bi lañ bokk léegi nag ngeen ma lebee ravitaillement nañoo fay par lii su ma wàccee damay liggéey. def bàyyi waaw commencé na waaw. waaw. waaw bëgg naa ceeb. na saa jënd waaw. ak diwli. waaw. waaw. loolu de mu ne amul maa ngi dem ba suuf soble. pompière. soble yi ah. soble saako rek. damay liggéey sax dama sama place ma fay jaay ay soble. Mm. ay pompière ay suukar ay meew ay café. benn saako ak benn saako. pompière. Mm, ak ak café rek ak boobar ak kaane laa ci. meew ñaata. meew. meew kilo baax na. 1 kilogramme de lait ah. waaw. poobar. poobar ñaata. un kilo. un kilo poobar. waaw naaj un kilo. un kilogramme ay ah. waaw. ak lan. ak lu fi amaat. Ah. waaw produits alimentaires yi moom yëpp. ay vinaigre ak. vinaigre bëgg naa ko tamit. vinaigre masi. vinaigre waaw vinaigre anam nga daal na ko leer ne yaay jël yi moom ñu si ginnaaw waaw kontaan moom trop ndax kaay ma dimbale la nga ànd liggéey gor su baax rek gor su baax rek mooy def loolu mm-hmm. ndax nga woo nga fekk yaay jirim bu toog këram di liggéey daan dooleel man damay dem joobe di ñëw waaw dama am place man wakaam lay jaayee waaw dama am place damay dem joobe di jaay di ñëw waaye madal ci damaa yokk fit waaw ñu ñaan yàlla nag li ñu dugg nii ci am la muy rëcc ñu yaay ji nañ jàpp ci ginnaaw mbooloo moom ànd ak moom bokk ndey baay incha allah di gërëm nag raam raab yi ndax lépp moom la bu ñu xamee madame géey yàlla ak moom la ndax moo ne kaay am naa sama ku baax boole koo ko hmm. te ñun lu ñu nag ci laaj bi ñu dugal hmm. dinañ ci sawar dem hmm. ndax dañ koo xam ci fulla ak fayda ak nangoo liggéey waaw ñu daje ci suñuy groupe ñu gis ko fa fulla ak fayda ñu am fi ñu ko fa teg la mu jiital group ba nekk fa présidente moom raad mii xëy na yéen xamu leen xam nañ moom mooy kan ay ñu bëree bootu ci ginnaaw ay nit ñu bari ñoo bootu ci ginnaaw raad yi waaw mu nekk di koo xam ne nit baax ku yiiw ku responsabilité ku bëgg boppam na macha allah ndax yaay ji bi ñu bëgg suñu bopp nangoo liggéey daan doole waaw. barakalla macha allah dañuy sant. suñu góor bii. ndax moo ñu jàppale moom. sëñ Xaadim. dañ nga ko sax. Hmm. ndax kuy def lu baax. Hmm. di dox lu baax. Hmm. macha allah sa jikkoy turandoo nga jël waaw raa bi nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm mi lay ñaanee ndax yaa ko doole bu dee ba mën a jot ci madame Ba madame Guèye yàlla ak xaadim moo tax ñu koy sant nag di ko gërëm di ko ñaanal yàlla mm-hmm. li mu bëgg àgg yàlla ko fa yàlla eggale di barkeel turandoo di la sant lool nag di la gërëm nag ku baax la boo ñëwee mm-hmm. dina am dal enquête la ci jàmm wax ak yow ci jàmm discipline mm-hmm. may la batma boo xam ne ànd ak yar ak teggin mm-hmm. ndax Sénégal ñun boo ñu mayee yar may ñu teggin may ñu fula may ñu fayda rek may nga ñu lépp mm-hmm. waaw lépp ñu ci moom macha allah kontaan na ci moom 要立足一点，我那个立足一点，不能开始。Qui est à Doula, nous créé pour les transformations des produits médicaux, nous devons permettre de nous faire des dimensions aussi, le transfert alimentaire, le transfert matériel, le transfert réalisé aussi, pour les financements. De même que pour le

rapport ak euh, bu ñu différente ba pare dañ lay woo pour ñu jël sa financement alimentaire wala matériel wala wala financement yi bëri na. Comment se passent les modalités de paiement? Les modalités de paiement aussi, c'est journalier. Journalier, yow yaa y a des taux d'intérêt non non amul taux d'intérêt parce que dañuy bi ñu koy créé dañoo xam bëgg nañu am intérêt pour xaalis bi pour matériel bi pour les produits alimentaires aussi. même chose donc les produits alimentaires xaalis dañ koy jëlee ci ressource bi. mu nekk prix boo xamante ne moom mooy boutique bi ñooy produit bi. voilà ñu ngi ci ñu ngi ci prix bi ñu ngi boutique la le message bi moo ko war ko lancer suñu doomu jigéen ñi yaay yeeg ainsi de suite pour ñu mën a waaj parce que c'est une première ah. message bi voilà dama koy lancer pour tous les femmes ñi nga xamante ni ñu ngi posé amuñu activité di chance que ñu jóg yëngatu am lu ñu def dimbali seen bopp dimbali seen njaboot di ko yëpp loolu chance la ñu exposé

bëggoon nañu gars yi toog ñu ne ñu liggéey ñu am activité yi ñu voilà boo gisee jigéen ñi si gën a favorisé parce que voilà jigéen ñi am activité mën toog voilà nañ ko ñëpp boo nekk ñëpp ñu si biir. macha allah merci beaucoup. fii yow ut fii ma looy ut looy wut fii mu may sax ci projet bi. alhamdulilah. yow loo fi wut yow.

yaa jaal agro ñi ñi fi jëkk ubbi ci lañ bokk mm-hmm. man ñi ñu jëkk a jox frigo ci laa bokk mu nekk loo xamante ni dañ cee am fierté ndax nag dañoo jëkk a ñëw sax nag jël ceeb jël jëwlin jël soble jël pomme de terre mm-hmm. fay mu jeex frigo yi ñëw ñu jël yaa jaal ki kii madame Guèye wax dëgg yàlla oyofal affaire yi mm-hmm. ne ñu ngi li ci gën a neex mooy daf lay laaj noo mën a fayee loolu moo ma ci gën a neex moom daf lay laaj noo mën a faye mhm. boo ko nee nàngam bi laa mën a faye mu ne la xaadim nee na nii la mën a faye xaadim jël te xaadim tamit yàqul dara nag wax dëgg yàlla lépp lu ko ma dañ koy waxoon moom la def affaire bi mettiwul mhm. jigéen bi bëgg a liggéey rek te fas yéene takk ndigam rek boo mhm. ñëwee fii di nga liggéey ndax kenn ñaanatul kenn taxawalatul kenn dox wutiwul dara ku ñëw fii ci bureau madame Guèye bii di nga jël li nga soxla ak li sa doole tollool nga dem liggéey di ñëw di verser mu jeex mu joxaat la léeg sax balaa jeex nga ñëw soxlawaat mu dubleel la ko jox la nga dem liggéey ndax loolu lépp ci jàppale jigéen ñi la ko def barke yonante bi kon madame Doye ca kaw ca kanam rek lañ koy ñaanal lii mu des nii fi mu ko teg foofu la ndax dafa ñëw fekk monsieur le maire di liggéey yor jidda caaray kaw nag te daan dajul suuf mu ñëw teg tànkam fi tànkinu jëkkëram ne ko dama lay jàppale te jàppale bi mu doon wax ñun gëm nañ ko ndax ba mu dooree ba nëga ni teggiwul tànkam benn yoon alalam la jël nag wax dëgg yàlla alal dafa sax ci xol te bu ñu koy jox day mel ni daf koy may te presque daf ñu koy may sax nag ndax lii daw taxaw ci benn bitik bañ defal la bitig booy taxaw bañ defal la ko kon ñun dañuy sant yàlla mhm. ñun liñ koy ñaanal rek mooy gudd fan ak wér mhm. gudd fan ak wér lañ koy ñaanal ndax bu wéree rek ñun ñu yokk mhm. ndax mooy suñu yokkute barke yonent bi kontaan rek nag damaa sonn rek waaye kon damay tartaar ba mu gën a neex <laughs> ndax yéen ñëpp comme jigéen ñi la ñuy dugal ma ñoo joxe woon daal di jox la sa rabi taay maa nga yóbbu ko sa sant rek te noo gisee financement bi. financement bi wax dëgg yàlla ndax lañ ñu loolu dong gis parce que am la ñu te bu leen neexoon ñu teg si moom laa gis macha allah